internet yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo di leen jaajëfal euh, te di leen santaat di kontaan si yéen euh, saa su euh, di leen dëkkal ay information yi nga xamante mooy information yi ngeen bëgg tey nag fi woo teg fii ay combat yu am solo di war a nekk journée bu neex le 25 bi ñu Adama Diouf kenn dootu la présenté askan bi kenn dootu la présenté réew mi ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu mbokk internet yi maa ngi lay nuyu bu baax mbokk internet yi comme xam naa micro a a Eh, ngulul pol nguru séeréer taabe xalambaas ngindin fuya sande mën naa ñu ñëpp daal di nuyu mbokk yëpp di waa taabe di nuyu waa xalambaas di nuyu nag adduna bi yëpp ndax boo waxee kii rek war nga wax adduna bi yëpp di nuyu suma adversaire wuli di nuyu mbokk internet yëpp di nuyu nag sama patron Mamadou Touré di nuyu Matar Diop au conseil docteur Makumba Diouf euh, mooy Sarr Tamsir Faye Souleymane Dional ñi nga xam dañ ciy jàpp meeru Grand Yoff spécial ma Diop Diop di nuyu vraiment ñëpp ah, di nuyu jàmbaar Touré borom Thiaré di nuyu ñëpp di woo ñëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu waa Grand Yoff di nuyu président Fall si club Mbayang Fall nuyu suñu production góorgóorlu nuyu Ousmane Senghor bu ma di nuyu ñëpp quoi nuyoo gi xam naa du jeex mais mën naa mën ko fa yemale quoi parce que ku ma tudd rek bu ma mere quoi xam ne àdduna demee noonu mais kontaan nag ñëpp di nuyu docteur président équipement Médis Ablaye Ndour di nuyu kii Adama Ndour di nuyu Ablaye Ndour papam di nuyu ñëpp Pierre Ipen ak yay soxnam fàttewuma kenn daal. après boo après waaw. <laughs> Armé Diouf balaa ñuy ñëw sa combat yaa kii di wuli euh, dañuy ñëw si journée bi loo wax si journée bi riche bi nga xamante ni journée bi riche na ko. journée bi nag xam nga nit ci nit ci ñuul dañu dul comprendre quoi. gis nga ñi boo gisee jom bu ñu indee ak mor ñuy loqati ñëpp dañu la war a jàppale parce que boo ko xoolee buñ dee utte dañuy dem ut mbor yi nga xam ne mbor yooyu yëpp ñoo taxaw daan tey mais man ci victoire laa jóge sax mais boo xoolee mbor ñuy loqati dem Petite Côte gi xam nga dem ci dem ci région yi dem ñëw Dakar nga war a xam ne ñii nii kenn boo ko xoolee combat yi ci am yëpp dañu jël ay mboru Fadiouth jël jël ay ñoom oboli jël ñeneen ak ñeneen indi leen mbir nag dafa gis nga fii Sénégal booy doog a ñëw ëllëg ñu dimbale la pour nga am doole day xaw a jafe loolu moom lañ ko wax sedde dañ ko dañ leen war a jàppale palaat bu paax jàppale leen pour ñu mën a suqale lambu parce que Papa Gaston mooy a day doxal lu mën rek gars yi dañ leen war a jàppale te ñu ci am jom lañu nag nga xool lamb yi tëgg nag depuis kañ la mais déggoo ah, di lañu mais bi ñoom ñoo ko gën a yor ndax boo ko xoolee déggoo benn mbër buy ñàkk tuuti coow te wóor na ma ne xaw de mais wóor na ma ne ña mbër boo ci gis am na problème xaalis sax ñu yëkkati ci li la waroon jox sax ñoom jombal la ñu am jom lañu di nuyu Jimbo di nuyu Pape di nuyu aller spécial bëgg fa yëpp doon def combat yi mais kontaan ak ñoom bu baax a baax a baax ñii dañ leen war a jàppale mais nag combat yi gars yi bu ñu lekkee xar yi ba pare dañoo war a ñëw Arène Nationale ay tuus yu neex ak bëre bu neex boo buggee gis bëre rek gisuma ku ciy jàppale. mais yow mais combat bu dem deuxième round amul fii. mais wuli neen day bëre day wax rek. ma wax xam nga Seck bu day wax. day wax Seck bu lekkee kaane wax ci wax lañ toll. ne day wax nii. man kenn mënu maa teree bëre benn combat laa fi am te bërewu ma ma diggante ak Malick Niang. mu def bi pédo weesoo loolu gis naa ko moom kooku sax boo tax sax buñ ma ñaanee combat ma jël ko ndax warta door police police yi di waroon moom comme waa ji ko ci mbapat moom loolu tax buñ door police yow misa loolu ma wax yabaate misa loolu ma nee na da la fas yéene duma waaw nee na faj mais xam naa ne bu dee feebar a faj ba yemul man rek nee na ba bëgg a doon maire Refane waaw maire non non bàyyi loolu. waaw da ngay jàppale si loolu kan moo ko jox maire Refane. waaw dëkkam. waaye day soob rek kenn du ko jox maire Refane ah. waaw ah, dama ma wëli de. waaye non ah non man di wëli kese sax damaa mos a ragal kenn. yow da nga ma wëli. yow xam nga ne mosuma daw ci yow ci ginnaaw saako mos ngaa ko gis yow. su ma la gis de waaye mën nañoo su wëli. ah su ma la wëli mën naa gis loolu. non mënoo ko gis ko. mënoo ko gis ci ginnaaw saako mënuma ko gis. walaay jokkul gis la wax lii. mu ne nee na bu arbitre bi sifflé. Oh, def gars yi sa tànk wala nu def gars sax du def loolu man maa la wax def sama a wax internet si di jaale nag suñu maire bi nga xam ne dafa gaañu woon géej di nuyu xam ne jeune te vraiment mu ngi jàpp ci affaire bi vraiment moom dina jëlal sax ay supporters yi billet ay militants ay dëkk-dëkk ba dina leen jëlal ay billet pour combat bi vraiment kontaan naa maa ngi spécial di nuyu waa Tamba yëpp waa ñëw